noot yéen ñuy topp ci chaîne bi di s tv ginnaaw ba ñu leen nuyoo tey ñu ñëw ngir waxtaan ak euh, askan wi ci li nga xam ni moo di immigration clandestin bi nga xam ni euh, jamono ji gis nañ xale yi ni ñuy jëlee gaal gi di dem ci géej gi ngir dem fa li nga xam moo di Espagne ñu gis euh, ni ñu bari àgg nañ waaye gis tamit ñu bari ñu ngi ñàkk seen bakkan ci géej gi kilifa gi nuyu nañu la. ah ñoo lay fay bi. naka la. tur bi ñoom Ahmed lañ koy wax Mohamed. Mouhamed lan koy wax. Euh, Mouhamed ginnaaw bu ñu la nuyoo tey ñu ñëwoon fii ngir amal waxtaan ak yow ci li nga xam ni moo di immigration clandestin bi Mouhamed euh, nan nga gisee xale yi jël gi nga xam ne ñu ngi koy jël gaal gi. Eh, jërëjëf sëñ bi maa ngi lay nuyu di bu baax di nuyu waa site bi yëpp euh, wax dëgg yàlla immigration clandestine bi ñu ko gisee woo duñ def lu rafetlu ko man maanaam sama xalaat jàpp naa ne dañ koy rafetlu te encore boo yi nga xam ne maam ñoom tey ji dem nañ si dañoo am dëgg si kaw tey wax yàlla premièrement bo gisé boy daan dem da nañ yi dañu ñak fayda soir wala ñi dañu ñak ñu seen wërsak wala lan mais tout le moment ni ni xamna ni amna am seen kaw dal par exemple tay ma ak ni réew mi démé ak tay buñ démé liñ fi gis ak ni ak ñak espoir bi dal mo gëna motiver boy yi pour que ñom ñi dem wax dëgg yalla affaire bobu la dal euh mohammed yow jamono ji lan nga japp ni mo waral euh, xalé yi di jël yoonu gal gi di dem ah lu dara du dara dul yaakaar bu tas rek seen yaakaar mo tas rek wax dëgg yalla parce que nit moom bu demee amatul ben espoir amatul benn eh, seen espoir lañ bëgg a perte daal maanaam amatul benn yaakaar seen réew wax dëgg yàlla leen lañ fi dese woon mooy que suñu président mais fu euh, ñu bëri daal moo lay motiver ak ñàkk euh, confiance bi ñu am léegi nii ba nga xam ne sonn ak sonn gi ñu sonn yëpp boole na boole nañ ko ak métti bi tax ñoom ñu wax dëgg yàlla ñu jël gaal gi ñoom ñëpp na dañuy dem si kii bi loolu daal moo waral affaire daal yaakaar naa lu ko gën a waral si la bokk kon yow Mouhamed da nga ci jël gi ñuy jël gaal gi si gars dañuy jiitu rek dañuy jiitu mais wax dëgg yàlla ñoo ngi seen ginnaaw de dañ xam loolu ñoo ngi seen ginnaaw ñu nii ñëpp dañuy dem fii nga gis gars yi nii ñëpp pare na euh, ban politique nga jàpp ni moom la état bi war a tax euh, ngir euh, xale yi jëm gi nga xam ñu ngi koy dem ci gaal gi ma mën a arrêté lan moo ko mën a arrêté waaw jaaw jaaw naa arrêté ko arrêté ko moom parce que boo xoolee depuis kañ 2022 ba léegi xale yi ñoo ngi dem mais mosoo gis état bu Sénégal am benn matuwaay boo xam ne jël na ko mosoo gis état bu Sénégal am maanaam génn wax askanam sax mosoo gis mu def ko. mais bu ngeen nekkee di jël gaag tamit di dem te ki nga xam moo di seen leader politique mi ngi ñu tëj ci kaso bi loolu tamit koy wor. non de question de wor parce que maanaam xamul mooy li ma la wax sànq rek mooy ñàkk espoir bi parce que ñoom li li ay mois de mars jaar nañ fi mois de juin lu ne jaar na fi gis na booy ni taxawoo na na ko ñii laago nañ si ku ne ak loolu lu ñu def ba nga xam ne dem nañ gis affaire yi demee nii ñaak espoir boobu na moo des seen bopp yi moo tax booy yi mënut amutuñu confiance boo xam ne mën nañ koo toogee si réew mi daal maanaam wax dëgg Mohamed euh, ban message nga am booy lancé ak lan ngay tàggatoo message booy lancé daal mooy maanaam mooy la waa ji waxoon rek képp koo xamante ni muy jigéen wala muy góor am nga paas demal képp koo xamante ni yaay nga wala baay nga jëlal sa ay takkaay nga jaay ko nga jox seeni doom ñi dem wax dëgg yàlla réew mi du baax ndax que réew la boo xamante ni fen moo nekk ci kaw dëgg te réew moo xamante ni fen moo nekk ci kaw dëggam du baax mukk dëgg dañ koy jiite réew mi mën a baax wasalaam laay tàng